leen ci àndandoo beeg télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci arrêté Ousmane Ngom lii di cour suprême suul na ko nag ñi nga xam ne ñooy xeex ak ak yelleefu doomi aadama ne am nañ ci ab mbégte mu di ab dogal boo xamante ne da doon tere bépp sénégalais muy dem centre ville di fa manifester. tey jile ñetteelu ndaje ngir waajal dialogue national bi ñuy amal mardi bi ñu dëgmal ñi yëngatu ci wàllum politique société civile ak waa gi ñoom ñëpp direction générale des élections waaye nag liñ fa nemmeeku tey mooy front de résistance nationale teewul ci ndaje boobule euh, dialogue euh, politique euh, boobule sax dinañ ci waxtaan tey ak suñu gan Souleymane Ndiaye lay wuyoo bokk ci pôle des non alignés ci xibaar yi ba léegi sàmmkat ya nekk fële ca daral ba ca pikin dañ ko doon duppee Seras di wax seeni mbëbët rawatina ñu kon jëlee marché bi foofule daral bi foofule waaye gën koo yeesal seen liggéey ba mu di ay doléance suñu yëkkati ci kaw seenub jëwriñ di Samba Ndiobène Kane mi euh, Samba Ndiobène mi gontu woon foofu lee dem seeti leen wallum tàggat yaram ak coupe du monde football ñi seen at motagul ñaar fukk dañ koy amal ca Pologne gaynde yu ndaw yam seen ndam bu njëkk seen match seen digg ak Tahiti jamono ji nag seenub entraîneur ne ñu ngi waajal bu baax a baax beneen ndaje bi dimanche lay doon diggante Sénégal ak Colombie mbokk yi loolee tënk la ne suuti ñu yaatal ko ginnaaw bañ la nuyuwaatee ba noppi xibaar yi ñu dooree kook arrêté Ousmane Ngom arrêté boobule amatul ndax chambre administrative bu cour suprême moom moo jël dogal euh, dindi ko fii euh, ñii di waa ñii di waa kon euh, ñiy xeex ak ak yelleefu doomi aadama yàgg nañ ko bëgg xeex ak ñenn ñi yëngatu ci wàllum politique kii di maître Assane Dioma Ndiaye moom moo ko xamle mu di ab décision boo xamante ni da doon tere bépp sénégalais muy dem ca centre ville di fa manifester ndax dañoo jàpp kon Dioma Ndiaye lañ ciy déglu. démocratie gën a dëgër jàpp nañ ne bu constitution bi euh, joxe ay droits consacré ay liberté constitution bi rek moo mun a wàññiwaat liberté yooyu wala mu restreindre ko wala mu anéantir ko mais li ñu gis ci arrêté Ousmane Ngom mooy euh, constitution bi dafa may citoyen bu ne soo bëggee manifester ci Sénégal gi yëpp territoire bi nga déposer demande administration bi xool ndax ay jumtukaay yi mu am may na ko mu euh, permettre la nga def ko wala déet mais li ñu gisoon mooy ku def manifestation rek dañ na naan ah am na arrêté ministre bu fi nekk 2011 mënoo manifester donc ñu jàppale loolu dañuy jox arrêté bi dañuy wax euh, caractère général et permanent et ñu seetne aussi dañ koy teg ci kaw constitution bi moo tax bi ñu teree manifestation PDS bi 31 août 2000 2018 ñu ne nañ sukkandiku ci interdiction boobu pour laaj cour suprême nag ndax interdiction boobu sukkandiku ci arrêté Ousmane Ngom bi méngoo na ak constitution bi wala déet cour suprême jàpp na ne interdiction boobu ñu def ci euh, manifestation PDS bi ñu bëggoon def le 4 septembre ñu génne arrêté le 31 août sukkandiku ko ci arrêté Ousmane Ngom bi euh, méngoowul ak constitution liy wone rek ne jàpp naa ne arrêté Ousmane Ngom bi dafay violer constitution que euh, mesure boo xam ne ci kawam lañ ko teg itam day violer constitution moo tax mu annuler arrêté 31 août 2018 bi ñu wax ci mbirum Thione Balago Seck kii di avocat am nag di wax ni euh, dossier bu client am boobule mënuñu ko ubbiwaat ndax euh, procédure ba ca boppam la ñu nulal mu maître Ousmane Seye di ci dolli ni yëf yi bokkul dara ak bu Khalifa Babacar Sall ñi ko ñenn ñi gisee ndax dañoo ba ne moom avocat am teelul woon ba tax ñu ni la procédure boobulee yëpp Habib Faye Modou Diop. Thione Seck bàyyi nañ ko léegi liibar na te loole ba faw dossier bi tëj nañu ko te kenn mënatu ko tijji bu ñu sukkandikoo ci avocat am bii. Thione bu fekkoon ne tey am na leneen lu dul ay procès-verbaux d'audition ñu war ko cee àtte kon àtte bi mun na wéy ñu sukkandiku ci pièces yooyu mais dafa def ne. moom procès verbaux d'audition yooyu yëpp ak scellé bi nga xam ne PV la mooy fi yi nekkoon ci loolu lañ ko doon atte loolu nag annulé nañ ko. ne moom deful dara loole la ko waral rek moo di tribunal bi nee na atte gi mënta àgg. loolu yëpp tribunal moom bu ñu xasee ba indi dossier bi mën nga revenir à suite bi ñëwee nag ñu ne leen coon ñu ko atte parce que procédure bi baaxul parce que dañu violé article cinq du règlement de la de l'UEMOA indi ay firnde yu wóor teg. buñ kon naatable ak ki fi nekkoon ndey ji réew bokk moomeel bu ndakaaru di xalifa Ababacar Sall maître Ousmane Seye la mu ci bëgg mooy mu leer. foog nit ñi maandu ba pare di laajte ba pare aussi xam li ñuy wax dégg naa tey ñu bëri ñu ne way justice bi euh, li mu defal Thione Seck defalu ko xalifa Sall mais c'est pas vrai ci dossier xalifa Sall lañ sukkandiku sax ci arrêt bu cour d'appel ak arrêt bu cour de justice de la CEDEAO ci lañ sukkandiku pour annuler procès verbaux yi ñu dëkk loo Euh, kii euh, euh, Thione Seck ci avocat am teewul procès verbaux yi ñu dëkkaloo xalifa Sall ci avoc ay seen ay avocat am teewul dañ ko annulé mais xalifa Sall ñu ngi ko atte sur la base du rapport de l' inspection de d' état affaire Thione amutoon rapport inspection générale d' état juróom-ñetti weer ñaari fan yooye la nekk ci nungu siin moom mii di leaderu groupe Ramdan léegi nag libre na te itam mën na wéyali ay activité am ci anam bu ko neexee ci wàllu woowu ba léegi bâtonnier bu ordre des avocats moom nag am na gis-gis bu mu ci am ak Sénégal ni muy ñàkk wàccoonteeg règlement 5 bu UEMOA ndax ci loolu sax la ñu sukkandiku ba mën a bàyyi coon balago sek du ñàkk dinañ ko dégg moom bâtonnier bi laata ñuy tàggatoo ci xibaar yi tey jile amoon na ndaje bu bees bu am ca direction générale des élections ngir waajal waxtaan wu yaa bi ñu nar a amal mardi bi ñu dëgmal waa kujje gi wala bokk sax nag société civile ak ñenn ci ay ak waa gi ñoo fa daje woon di waxtaan euh, Pape Fara ñi nga mu nga fa Pape Fara maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Naata Mbengue. ndax ñu ñëwoon bële passé ñëw na ndax ñu ngi naan que front de résistance nationale teewul tey jile. waaw teewuñu nag gisuñu leen foofu nga xam ne moo nekk ca direction générale bu élection yi. foofu nag ñi ñu fa gis naata moo nekk ñi ànd nguur gi ñi nga xam ne ñoom ñu féete tamit ci wàllu jalal boobu ak société civile beeg non alignés yi waxtaan ak administration bi li ñu mën a jàpp daal moo nekk terme de référence yi adopté nañ ko pour l'instant nag am nay amendement yu bëree bëri def nañ ko xam nga mu ngi jëm ci wàllu présidentiel bi jàpp élection législative yi jëm ci financement parti politique yeeg yeneen yu nu mel loolu daal jot nañ koy waxtaane ñi nga xam ne ñoo nekk non alignés yi fukki ci amendement lañ def waaye société civile bi tamit ñu nga fa woon teew fa ñoom it gis nañ ne euh, li nu mel am nay avancement di ne nag beneen pôle bi daal di ñëw ñu mën a waxtaan ñoom société civile boobu sax rafet nañ baax baax li nga xam ne njiitu réew mi wax na ko maanaam ne lépp loo xam ne tukkee nañ ci moom conscience bi dinañ ko jël waaye nee nañ li ci gën a am solo moom mu nekk am sincérité parce que la amoon ca parrainage ba moom moo nekk n xam nga ba ñuy waxtaane dañ ne parrainage bi kenn du ci dellu si kon lu ñu amul conscience kon président day arbitré leneen li ñu mën a jàpp tamit doon na li ñuy tamit wax ko ne nañ li nu comité cellulaire bi ñuy teg loolu dina nekk lu ñu am solo loo xam ne dinañ ko kii euh, dinañ ko waxtaane altine daal jàpp àllarba ci la ñu fësee ne dajawaat ngir xool ndax ku jegee nekk ci front national de résistance dinañ ñëw wala déet ndax tey ñoom rek a fa teewu Pape Fara Gningue ndax am na ay tur yu génn foofulee déggoon nañ ci ki ñu ne moom mooy jiite wala ñi war a jiite commission ba ba léegi nag waxuñu benn tur jàppuñu kenn ndax nag xam nga ku ci ne daa am ay proposition yu mu teg euh, gisoon nañ fa daal professeur Seydou Nourou Ba waaye nag xam naa ne nee nañ seen rencontre bu mujj bi dinañ xam ñan ñoo war a jiite boobu comité ak ñi nga xam ne ñoom ñoo pour dialogue boobu njiitu réew mi woote ñu daal koy a amal ci ni nga xam ne noonu la gën. jërëjëf Pape Fara ñi nga di ko sant di ko gërëm moom Souleymane Ndiaye ñu ngi lay nuyu. ñu ngi yaa ngi bokk ci euh, pôle noonali aligné mooy ñi ñu naan bokkuñu ci kujje gi bokkuñu tam ci euh, pouvoir ci pouvoir bi euh, président Macky Sall nee na moom nangu na tey jile ngir lépp lu tukkee ci waxtaan yooyu la ñu doxal ko ndax loolu ci sa gis-gis dina soppi xaj na ku ci nekk ak ni nga taxawee ak ni nga doon ñëwee ci dialogue bi ak ñi nga xam ne dañoo ne woon sax du ñu ñëw teg seeni condition ah jërëjëf madame Soxna Naata Mbaye ñu ngi lay gërëm bu baax si invitation bi. Euh, di nuyu sénégalais yëpp di nuyu suñu waa parti muy synergie pour un développement durable SDD yoonu nataange di nuyu kilifa diine yeeg kilifa aaday yi avant ñuy dugg euh, si bitu sujet bi man tey euh, toogaluma fi les non alignés ah. dama ñëw si sama turu parti muy synergie pour un développement durable yoonu naataange si dialogue bi am na ay pôle yu ñu teg maanaam pôle opposition pôle non aligné ak pôle majorité mais man je pense que politique képp ku nga xam ne bokk nekkoo de exercer pouvoir ci opposition nga nekk. kon yow nekkoo non aligné. non. nga bokk. képp ku nga xam ne exercer woo pouvoir rek. opposition nga bokk non aligné sax opposition opposition la. kon opposition parce que jargon boobu. Mhm. man gisuma ko fenn. vraiment te xaw ma si yan critère leen ko teg et tout ça mais man lu ma gëm mooy képp ku nga xam ne exercer au pouvoir rek opposition nga bokk. kon ànd nga ci ñi nga xam ne nee nañu noonu aligne moom nañ ko fi dindi maanaam faaw nga bokk fii wala nga bokk fële. faaw nga bokk fii mbaa nga bokk fële waaw exactement. man loolu laa gëm waaw loolu leer na waaw Souleymane Ndiaye kon yaa bi rek Macky Sall dégg nañ ko li mu wax njiitu réew mi nee na noppi na ngir lépp lu ci tukkee ñu jëmmal ko ndax loolu xaj na war na soppi ci nit ñi seen approche bi ñu war a léegi ci waxtaan woowule waaw man je pense que président de la république lu mu def noonu lu dañ koy rafetlu parce que lu ñu doon jaaxal mooy que lépp lu nga xam ne tukkee na si dialogue bi mu bañ ne du ko jëfee mais comme moom d'emblée nee na pare na pour teg une personnalité neutre également pare na pour que euh, bépp conclusion bu nga xam ne euh, am na jeexital ci jaloog bi dina ko jëfee loolu ñun dañ koy rafetlu. di ko encourager mu continuer en ce sens. Hmm. léegi euh, dégg nañ tamit waa société civile ba waxtaan wi commencé am na ay tour yu ñu jox yu jot a euh, pour ñu war a jiite comité boobule ay nit ñoo xam ne dañoo tëddee njaaxaanaay yéen ci seen parti ñan ngeen xalaat ndax waxtaan ngeen waxtaan ngeen ci nit ñi seen xel dem. waaw ñun suñu parti dañu faral di am ay ndaje di si waxtaanee si lépp lu nga xam ne day jëmale réew mi kanam mais concernant le dialogue politique. ñun dès lors que ñu indi une personalité neutre parce que ba léegi amul kenn ku nga xam ne wax nañ ñu ko pour le moment société société civile man je pense que. ñoom def nañ seen i proposition ñoom waa société civile. waaw waa société civile d' accord maintenant ñun y' a aucun problème suñu suy associé wooñu nañu tel tel tel personalité moom leen xalaat pour que mu jiitee ndaje bi ñun loolu amuñ ci problème je pense que que ça soit la société civile nguur gi. opposition les non alignés ñun ñëpp intérêt réew mi moo ñu tax a jóg donc je pense que suñu amee consensus si intérêt réew mi rek du doon euh, problème ñun amuñ problème pour personalité bu ñu teg na doon une personnalité neutre. kon yéen amoo leen xaj na benn leen dara lu ngeen di wax ci ku mel ni Mazid Ndiaye ak professeur Babacar Gueye ñi nga xam ne avancé nañ ko non aligné ñi ngeen di bañ tamit ñoom wax nañu eh, ñoom tamit ñaar ñu ñu proposé muy ñaari professeur Alioune Sall ak Babacar Kanté ndax jaar-jaar tax na ba ñu war leen mën a dénk commission boobu liggéey bi ñu leen dénk dinañ ko def. waaw ah, je pense que képp kuy teg proposition. dafa am si critères yi nga xam ne loolu nga basé wu. Hmm, mais critères yooyu ñoom ko loolu mën na ne. waaw dëgg la mais l'essentiel dès lors que ñu ne c'est une personnalité neutre xam nga ku ne dafa neutre rek maanaam faroo si nguur gi faroo si opposition donc ñun amuñ si problème que ça soit Madine Ndiaye wala keneen ak keneen wala Massamba wala demba wala soxla Naata ñun amuñ problème boobu l'essentiel mooy que ñu am consensus ñun ñëpp ñu ne kii c'est une personnalité neutre mu mën a conduire dialogue hmm. mais nu mu munti tudd ñun loolu moom. amuñ si problème. Ah, beneen laaj bi Souleymane Ndiaye mooy yéen au niveau de votre parti yan yeneen euh, proposition maanaam ngeen teg ci table bi ndax dañoo ne ku nekk tamit bul ñëw rek loxoy neen boo ñëwee di nga ne xaj na lii nga bëgg ñu waxtaanee ko ak lii moo la naqari ci présidentielle bi weesu wala processus électoral bi de façon générale. waaw dëgg la ñun suñu parti jot teen def ay proposition envoyé ko à la direction générale des élections bu ma demee si lancement dialogue national bi ba pare dama woote sama comité scientifique. ñu def ay propositions yu pertinentes un bi jox nañ si xam nañ ne baax na parenage bi baax na mais modalité d' application parrainage bi c' ce qui pose problème yow xam nga pertinemment que les sénégalais ne savent pas signer nañ ma jégal. lu ci ëpp lu ci ëpp suñ la ne woon yow signer li nga signer waat aliru signature bi rek la ñuy xool même à la banque. mais pour signature bi identique day poser problème te gis nañ ne les doublons également ku nga xam ne moo njëkk déposé rek kooku la ñu accepté listam man je pense que ñaari sance yëpp leen war a xool parce que citoyen bu nga xam ne pare na na kii pare na na kële et tout ça bon si yan critère la ñu basé wu am na ñeneen ñu nga xam ne dañu dem ramasser carte d'identité nit ñi ñëw di bindal seen bopp di signer à la place des gens je pense que war neen teg benn mécanisme bu nga xam ne parrainage bi mun neen ko appliquer certes mais bu daal modalité d'application bi dañ war a xoolaat hmm. surtout élection locale yi on a plus de 557 collectivités locales au Sénégal parrainage bi loolu day poser problème deuxièmement mooy caution yi mbirum costion yi fekkee ne dans les 557 collectivités locales du Sénégal ñu ne la fu nekk war nga indi parrainage bu 500000 wala nangam ci parti politique day métti parce que loolu den ñun proposition bu ñu joxe maanaam pour les communes rurales si àll bi communes rural yi ñooñu seen costion mun na doon cent mille population bi ku ñu tànn loolu ëpp solo ku nga xam ne si kooku leen am confiance parce que costion bi am na nu koy élever loolu dañu naan ah borom barke daal leen ñëw doon maire alors que dafa am critères yu bëri yu nga xam ne yooyu leen war a xool war neen xool étique war neen xool ndax yow dëkk bi am nga fa njëriñ et tout ça ndax population bi am na confiance yow troisièmement également mooy mode d'élection des maires maanaam système bu ñu ko doon defee ñun dangay ñëw si collectivité nga jiite liste nga dem ba si cëppaandaw la nga gagné soo gañee conseillers ñoom ñoo ñëw fal c'est indirect. Mm. maintenant di nga gis ko nga xam ne yor na maleetu xaalisam ñëw si ginnaaw jënd ay conseillers su boobaa population bi daanaka si ku am yaakaar kooku du doon maire moo tax ñun luñ proposé mooy que mu doon direct képp ku nga xam ne yaay tëdd liste soo gañee population bi su mm. fekkee yow leen wóolu yow yaay doon maire. Mm. waaw loolu daal c'est des propositions ñu nga xam ne bëgg neen ñu jëfee ko. Euh, laaj bu mujj bi Souleymane Ndiaye mm. mooy yow sa parti jamono ji fan la toll ci échiquier politique bi xañ na ba mu war a mën a taxaw ne moom sa voix compte maanaam bu waxee ñu mën koo déglu jamono ji. waaw jamono ji jamono ji ñuy waaj ay local yaa ngi koy wax léegi. effectivement jamono ji ñun suñ parti am na fépp si réew mi ak si àdduna bi balaa euh, dialogue beeg. présidentielle beeg yëpp ñun participer woon nen participer woon nen bokk neen ci coalition te avant présidentielle beeg lépp ñun un peu partout fépp foo dem ci réew mi. fu ci mel ni Kaolack fu ci mel ni Kaolack. ci ban coalition ngeen maa ngi woon coalition Idy 2019 ma leen bokkoon. Mm. Euh, fu mel ni Kaolack foofu def nen fa ndaje bu mag a mag a mag a mag soo demee Ziguinchor ren ay côté Goudomp et tout ça lépp lu nga xam ne final la et tout ça ñun ñoo ko. parrainé woon final bu gën a mag Ziguinchor ren ñun ñoo ko parrainé donc foofu suñu base naturelle la. Goudomp suñu base dañoo am sens également euh, samay doom juddoo Kaolack yaroo fa et tout ça moo tax Kaolack aussi ñu am fa wàll bu rëy. kon local yi daal mën nañoo xaar ni xaj na Ziguinchor foofu ngeen di gën a dem féete ji maire Ziguinchor ngeen bëgg a jël wala. loolu yeggaguñ fa. Ah. suñ fa yeggee su boobaa dinañ wax fu nga xam ne foofu la dem soo créé parti politique toutes les collectivités collectivités locales boo mën a xëccoo rek di nga fa dem incha allah on aura des représentants incha allah un peu partout. jërëjëf jërëjëf Souleymane Ndiaye di la sant di la gërëm ci wuyu si bi ñu doon waxtaanee wàllum dialogue politique bi ak réew mi fu mu toll ci wàllum politique sant la gërëm la bu baax a baax mbokk yi ñu wëy ba léegi ci waa jërëjëf ñu wëy ci xibaar yi mbokk yi ñu ngi leen ko doon wax sànq bâtonnier beeg kàdd yi mu yëkkati ci mbirum Thione Seck ak Khalifa Ababacar sàll rawatina règlement 5 bu waa ndax ci loolu lañu ñu sukkandiku ñu ne ngir ñu la la atte bu euh, Thione Balago Seck euh, moom dañ koy déglu Le cas de Khalifa Sall, c'est là où j'ai creusé pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Quand monsieur Khalifa bi ñu jàppee monsieur Khalifa Sall mu nekk BAG fii ci suuf ñu koy interroger maître El Hadji Moustapha Diouf se présentant comme son avocat moo dem dans la salle bi ñu ko doon interroger demander à être présent conformément à l'article 5 ñu dàq ko ni ko doo fi dugg. maître El Hadj Diouf génn li ma leen di wax nii man ngeen ko laaj ni ko woo ma bâtonnier j'ai un problème ma ni ko quel le problème mu ni ma dama dem di assister sama client xalifa Sall ñu ni ma doo fi dugg ma ni ko baax na je me réfère à leur supérieur maa ngi wax ak seen supérieur ba xam ma raccroché woo Serigne Bassirou Gueye du ko weddi ni ko mais quest commence comment peut-il se faire que ñuy interroger un euh, euh, prévenu en tout cas une personne arrêtée ngeen ni euh, avocat am du ko fekke mu ni ma non non non no texte bi ku ñu ku ñu jàpp la wax or Khalifa Sall jàppuñu ko bu buñ paree day bu paree day ñibbi moom moo liir foofu texte bi fu ñu jàpp lisez le texte dañ ni la personne a a le droit d'assister d'être assistée par son client dès par son avocat dès l'interpellation mu ni ma non non non jàppuñu ko après day ñibbi ma ni ko très bien puisque loolu mooy sa position j'en prends acte bàyyi parce que man am na yoo xamante ne nii kenn du ma ci dugal donc euh, euh la conséquence mooy procédure bi bi mu ñëwee malgré que tiré wuñu conséquence ci annulation bi mais le procès verbal bi BAG def la cour d'appel l'a annulé dans l'affaire Khalifa Sall xaj na ils n'ont pas tiré les conséquences de cette annulation loolu xaw ma lu tax parce que ma ko wax dans la mesure où euh, liiruma arrêt bi et j'étais pas parti à ce procès là mais li ma bëgg wax mooy li am ci dossier bi ngeen évoqué muy Thione Seck li am ci dossier beneen bi muy Khalifa Sall c'est la faute des enquêteurs et de leur chef hiérarchique Leur chef hiérarchique, le chef des enquêteurs hiérarchiquement, le directeur de la police judiciaire, c'est le procureur de la République. Et le chef du procureur de la République, c'est le garde des Sceaux, ministre de la Justice. C'est eux qui ont joué et qui aujourd'hui ont des conséquences humaines. dégg ngeen ko noonu kon mooy maître Mbaye Guèye moom mooy bâtonnier de l'ordre des avocats ñu wax ci wàllum kaaraange fii ci Sénégal ak jamono ji niñ koy waxee lu bëree bëri ñenn ci askan wi nag jàpp ni patrouille yi ñu yokk ak jumtukaay yi ñuy jox waa police nekk na lu dal seen xel waaye li ñuy lu mooy yéexite gi ñuy nemmeeku yenn saay ak kilifa yi ni ñuy jëlee ay dogal dañuy xaar yenn saay ba bay way mbuus ñu door a jël dogal yu ni mel reportage Mouhamed Samba Babacar seenu kaaraange dañ ko gàllankoor ndax ay faat bakkan ñu nemmeeku fan yi ñu weesu fii ci senegal ba tax na ñu di ko ñaawlu. en tant que citoyen man dama koy déplorer parce que suñu nee euh, Sénégal lépp dañu naan Sénégal pays de la teranga te tamit jàmm ji lañ ñëpp di ko gën a namoo tey jii suñu gisee loolu dama koy dama koy ñaawlu. mais si biir koñ yi si biir kër yi am na ñoo xamante ne ñu ngi fa c'est des malfaiteurs mais lan moo tax mun ñu leen dénoncer. mais nañ leen dénoncé mu wàññeeku ñi éradiquer loolu mais duñu xaar ba ñu rey nit wala moom am agression nit ñi jóg naan waaw police fii gendarmerie dangam nangam déedéet du foofu ñu ñoo war a dimbali suñu bopp. peut-être tey lay door a feeñ mais chaque jour ñu constaté ay cas de meurtre wala viol partout dans le territoire national. bu ni nag li ñuy duppee nii kilifa yi dañuy yéex jóg saa yu jéyee amee ñoom ñu leen ñi ngi wax ni ki bile mbir. war nañ ko soppandi. ramas yi ñuy def xam nga mm, comme tout le temps patrouille yi tout temps yooyu mun nañ ko di def quoi donc yaakaar naa bu ñu ko defee ak ñenn ñi di yaraat seen i bopp di yar seeni doom aussi yàpp naa ne loolu mun ça peut être évité quoi. cest à ñoom ñoo war a loolu parce que loolu moom la moo tax ñu fal leen ñu ñu régler loolu ñun mën nañu wax taxaw mais buñ taxawee ñoom nañ continuer si loolu parce que ñun. ñun ñoom loolu loolu la loolu moo tax ñu ñu fal leen ñu leen di fay suñu xaalis. ñun sénégalais dañuy xaar ba dara xew ñu soog a jël ay mesures man je pense que kooku bu si toogoon jël ay mesures avant loolu xëy na lu si bëri maanaam fekk loola bett mën la daal. léeg ñu teg loxo léeg-léeg ñu war seeni oto di wër réew mi léeg sax ñu daal di jël seenu gàngoor ngir rek mën a fexe ba kaaraange am ci biir réew mi sénégalais yu bëri di ko rafetlu waaye jàpp ni rek. mbir bu ni mel dafa war di am saa bu amul sax. Fatou Binta Camara ca diwaanu Tambacounda jëwrin bi ñu dénk wàllum collectivité territoriale demoon na fa euh, démb ngir jébbal jaalu njiitu réew mi ak gouvernement bi yëpp moom Oumar Gueye àndoon foofu ak maître Sidiki Kaba ak secrétaire d'État bi ñu toftal ci jëwrin bi ñu dénk wàllum yoon ñu dem ca Tambacounda fekk ji fa suñu ndaw suñuy ndaw Moussa Oumar Gueye ak Amadou Diédhiou ñaari jëwriñ yi bokk ci nguur gi ak benn secrétaire d'État ñoom ñett ñoo dikk ngir daal di yeggal njaalu kii di njiitu réew mi président Macky Sall ñeel njabootu jëm si yàlla ji Binta Camara Omar moom mooy jëwriñ biñ denk lépp jëm ci wàllub dëkk dëkkaan yi collectivité teritorial yi toll fu mu mën a yem métit bu mel nii kenn mënu koo mesurer ndax ni mu demee moo tax looloo tax ñun ñëpp mbir mi def nañu tiis def nañu naqar mettitu nañ ko fu mettitu ma ne maître te Kaba jëwriñ biñ dekk lépp lu jëm ci wàllu force armées sa mbokk yi nga gis tout le Sénégal le monde entier ak Afrique war na que yow lu la dal ñun ñëpp la dal voilà loolu laa la bëggoon wax président de la république nee na tamit suñu ñëwee ci délégation bi ñu jox la 3 millions euh, pour que nga dugal ko ci sarax bi. ki di Malal Camara nekk directeur général bu agence développement local ci suba si daal dina nag jot beneen délégation boo xam ni ñu ngi soxla ko ci jëwriñ bi ñu denk lépp lu jëm ci wàllum njaboot gi ki jiite woon délégation bi nekk Babacar Ndiaye conseiller technique xelalkatu Ram Ndeye Sali Diop Dieng jëwriñ bi ñu denk wala soxna yeeg tout tànk yi ci jamono jooju nag ki nga xam ni moom mooy Papa Alioune Fall moom mi nga xam ni moom la ñu tuumal moo faat bakkanu kii di Binta Camara wuyu ay laaj ki tontu ci kanamu juge d'instruction bi nekk ci tribunal grande instance jërëjëf Moussa Omar Gueye fii ci Ndakaaru militaire yi nga xam ne dañoo amoon ay gaañu gaañu ci ay guerre ñoom nag altine ba léegi ñu ngi wane seenu bopp ndax dañoo toog ay weer mënuñoo fexe ba am ay garab ci pharmacie yi ñu leen jagleel sous-préfet bu Ndakaaru moom moo ci dox tànk jàmm sax ba yëf yi saafara terewul nag ñoom militaire ya woon yooyu nee nañu dinañ doxa defaat beneen grève bu ñu leen fayul seeni seeni pension mixte Fatima Touré mu nga fa woon ak du Diop ay weer a ngi militaire yi nga xam ni dañoo am way laago di dund ay jafe-jafe loole nag lu ko wund mooy yenn pharmacie bëgguñu leen jox ay garab ngir ñu faju nekk nag situation bu metti waaye nag kii di sous-préfet de Dakar indi na ci ay saafara. am na am ci ne bu ñu jëlul seen garab daanaka dañuy daal di sonn trop parce que amul am rupture ba mu amee tamit ñu ñaan leen yàq ñu teg seen manifestation bi ci suuf ñu ànd def ay démarches ba pharmacie bi nangu na tey pour militaire yi mën a jël moo tax ñu leen di remercier. ñoom si li ñu dëggaloon remercier pharmacien bi tamit li ñu lim ñu ñaan lim ñu may ubbiwaat ko li ci des nag mooy kilifa yi jot nañ ci problème bi ñu ngi seet nag la ñuy def en tout cas dox ci jàmm. nekk nag geste boo xam ni association bi ëmb way laago militaire yi di ko rafetlu. c'était une situation difficile tey doon ñëw ba fii duñu mën a jël seen garab yàlla def na tey avec l'intervention du préfet donc euh, des autorités et la collaboration de du pharmacien on décanter la situation voilà donc euh, euh, situation bi débloqué wu na ba ñu ngi commencé jël garab yi di wax ne rek euh, préfet dafa bokk si ñun parce que du guleet mu ñëw donc si problème yu bëri yu teg donc bu ñu ko sollicité day ñëw te heure bu ñëwee aussi ni lay demee day am solution. ñuy artu que ni am na yeneen rek revendication yu des lu ko mel ni seen pension mixte. man dama ne li ñuy revendiquer yëpp am na lu ko gën a ñor. xam nga nga am pension mixte bi nga xam ne ne ne que ne ñu ngi ko dala xeer ça fait léegi quatre ans ñu yaakaaroon ne ne que ne ne lépp yemb na ndekete pension mixte bi dañ ko yemale ci 33 personnes bu njëkk de laa lay wax nii génne 40 millions woo 33 personnes ñu ne ñi ñooy ayant droit yi parce que 85 pour cent la ñu am waa bureau pension ñoo ko def ak intendant bañ fa yónni woon ñoo ko accordé mais li ñu waxtaan ak premier ministre c'était pour la pension mixte maanaam boo amee pension d'invalidité da ngaa war a am pension mixte bi 90 jours rek boo ko defee dans l'armée boo ci feebaree wala nga gaañu ci ayant droit nga ci. tey nag benn wàll ci seen revendication autorités yi dal nañ leen koy fajal waaye nag nee na ñoom tey li leen gën a ñor mooy seen pension mixte bi ñu daal ci taxaw bu baax. ñii di ay ah, sàmmkat nekk ca daral ah, ba ca Pikine dañ fay jaaye ay gàtt seeraas ah, di wax la leen naqari ak la ñu bëgg yépp seen jëwrin moo leen gane si woon bokk na ci ñu ne ñu jële foofule seenub marché boobule ak tamit gën ko yeesal moom Samba Ndiobène Ka mu nga fa woon ci jamono ji muy def tournée ci lépp loo xamante ni ci ministère a la bokk Salif Sow Asmalik Diop Première étape de la visite, le forêt des petits ruminants de Pékin, communément appelé Seras. Ici, les impactés du TR train express régional. di jéggalu bu baax a baax Salif Sow élément boobule ci euh, kàllaamay nasaraan la du ñàkk dinañ ko euh, dégluwaat dañu wutali ji ca Saly Portudal ca diwaanu Mbour ngir xeex euh, géej géej ni muy lekkee suuf si foofule liggéey bañ fa door ci décembre nag dina noppi ministre bi ñu dénk wàllum tourisme moo ko xamle moom Alioune Sarr ne projet bi toll na ci fukki milliards ak juróom-benn te bés bu noppee dina tax ba bépp hôtel ak restaurant bu tëjoon ndax géej googee nangu diwaan ya ubbiwaat. Euh, moom euh, na Sarr ñu déglu ko ci micro Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. fii ci Saly hôtel bi ñu visité muy Cocotier gis ngeen ne plage bi dem na am na sax ay tabax yi ñu fa defoon yoo xam ne euh, daanu nañu loolu nag li muy wane mooy daanaka sur juróom ba juróom benn kilomètre ndox mi dafa ñëw moom si lu bëri ci suuf si looloo waral gouvernement du Sénégal ci tegtalu président Macky Sall indi programme bu ñu tuddee programme développement du tourisme. programme boobu li tax mu jóg mooy fexe ba place bi nga xam ne moom la hôtelier ñàkkoon ñu dellu leen ko moo waral liggéey bi ngeen gis lu mat juróom fukki camion bis du yàlla sàkk ñooy indi basalte fii ci sali pour taxawal ay jumtukaay yoo xam ne ñooy aar askan wi ñooy aar investissement bi loolu suñ ko defee c'est parce que dañu bëgg a relancer bu baax a baax offre touristique maanaam fexe ba touristes yi nga xam ñoo dañoo fii ndax boo xoolee daanaka hôtel sax tëj tëj ñi fi doon ñëw ñu mën a ñëw ci anam yoo xam ne anam yu mucc ayib xam ngeen bi ñu ko defee au au départ fi hôtel yi nekk rek lañ jublu woon ci liggéey bi waaye boo xoolee village bi nga xam ne mooy Ñaxexal am na daanaka un kilomètre ba un kilomètre cinq cent yoo xam ne nañ ko defaraat pour que aussi population ñoom tamit ñu gis seen bopp ci programme bi kon programme bu yaatu la maa ngi ñaan ñëpp jàpp ci mu nekk ndam ndamu Sénégal ndamu population yi tàggat yaram ñu ngi leen ko doon wax sànq coupe du monde football ñi seen at motagul ñaar fukk te ñu koy amal ca Pologne Sénégal am ndamam bu njëkk ci matcham bu njëkk diggam ak Tahiti ñetti bal la ci dara lañ leen dóor entreneur ba di Youssouf Dabo di wane mbégteem bu baax a baax nee ak ñu ngi waajal uh, it seenu beneen ndaje dimanche lay doon diggante senegal ak Colombie Youssouf Dabo ñu déglu ko ci micro uh, fédération sénégalaise bu football. Euh, bien démarrer le le daal nañuy door li nga xam ne moom moo di euh, jongante yi xam nañ naam ni euh, match bu euh, njëkk bi la waaye itam war nañ mën a xam ne am na lu bëri loo xamante ni mi ngi ñuy xaar ndax loole du yomb dinañu gën a mën a tax ñu daal di gën a jàjjuwaat ngir rek daal di jël ndam li loolee nag euh, faaw ma xoolaat ko ndax mu mel ni doon na ab équipe boo xamante ni euh, musuma daje ak ah, moom war na euh, janook ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Colombie ci boobule match nag nañ ci daal di profité wu daal di xoolaat bu baax a baax laataa ñuy wax Colombie war nañu wax ci poloñ ndax après poloñ ñu doog a wax ci li nga xam ne rek moom moo di Colombie. La Pologne, c'est. Euh, il y a déjà la Colombie avant la Pologne, donc pour le moment, je pense pas eux. Je pense à la. moo doon Youssouf Dabo entraîneur équipe nationale li yéen a kaay xëyee tey jii ci ji dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. bi ndax jërë ngeen jëf Thione Ballago Seck bu ko neexee solo ay sahélienam daagu fu ko neex ci réew mi ndax léegi ginnaawam bantang yëral xët mu njëkk Les Échos a kaay bi nee nañu Thione Ballago Seck la ko doon toppee mu di coowal faux billets yi démb verdict ba daanu na ca neenal na maanaam annulé na procédure bi ndax dafa gis ne jàppin wi dafa ami rëq-rëq xëy na bi ñu ko jàppee ba yóbbu ko gendarmerie moom coon ab awokaam nekk fa woon te loolee article 5 bu règlement UEMOA bi da koy tere moo waral juge bi annulé procédure bi muy coon di alaaji jiite ñoom ñaar ñëpp a libre Bamba Cissé di awokaab coon sekk ne ci journal bi ñun ñu doon défendre coon ak képp koo xam ne ak ak yelleefu doomu aadama yitteel na ko rafetlu ko am na lan lu muñ ci indil ci xët mu njëkk coon sekk nee na mësuma jug ci di wax ne defuma dara jël nañu samay 85 yàq sama der dugal ma ci kaso bi téye ma fa lu mat juróom-ñetti weer ci Mali foro réew mi quotidien nañu coon sekk dafay defante nee na gis na ne dañu ko beddi te ni ñu ko naxe ni ñu ko dóoree noonee la ñu fiy naxe ay ancien président coon sekk ne mbir yi ay complot la woon te li koy firndeel mooy bi sandarma yi di ñëw sama kër di ma jàpp booba journaliste yi ñoo ngi toog di xaar luñ wax ak luñ bind ci le quotidien njiital gi nañu fa dëgg rek ay mujj yàqu moom yàqu na ba pare yéenekaay bi nañu juge bi annulé na procédure bi ndax nee na dañoo xëtt li règlement 5 bu UEMOA bi santaane Le Quotidien tegal ñu ci ne juge bi delloo na coon sekk sur scène L'Observateur mel ne ku naan ko ndax dana fa yàgg ne doonte juge bi sukkandiku na ci article 5 bu règlement UEMOA bi ba annulé lépp terewul procureur bi moom bàyyeegul coon sekk Seydina Omar Diallo def na appel L'Observateur teg ci di ñu xamal ne dogal bi tribunal ko ci mbiri coon sekk yi waxul ndax coon sekk li ñu koy toppee moo ko def am lépp ndax ba ñu koy jàpp moom Thione Seck wàcce wuñu ak i droit am ci Vox Populi Thione Seck di fa wax ne kuy defar ay faux doo am kanam gu mel ne kanam gi ma yàlla jox moom borom kanam gi di Thione Seck doom doomi Mali ji di Alaaji Jiite yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne liibar nañu ci coowal faux billets li ñu leen den toppee Vox li mu bind ci xëtam mu njëkk mooy Thione Seck ma ngay zibile waaye procureur bi def na appel sursoir ne ñu wàlli neexul ne li ñu def Thione Seck ba tax juge bi annulé procédure bi exactement moom la ñu defoon Khalifa Sall te ba ay taxawee ne dañoo bëgg ñu annuler procédure bi justice dafa bañ ba tëdd ca naaj wa yéenekaay bi nañu lii nag mooy Samba am nday ak Samba amul nday Le Quotidien nañu coon sec ëpp na sens Khalifa Sall Macky Sall ci La Tribune yéenekaay bi nañu moom jiit réew mi di Macky Sall mandaam bu mujj bii mu nekke ñàkkul lu mu ciy waajal askanu Sénégal fi ko journal bi teg moo di ci jëflanteem diggam ak waa bitim réew ay duggam ak i génnam ñu dugg ci l'Observateur waxtaane mbiri dialogue national bi mu woote moom président Macky Sall l'Observateur tax nañu talaata ñaar fukki weeru mai ci la dialogue national boobee war a am waaye moom Macky Sall bëggul dara lu galfan dialogue national bi ku jëg geek li ñu doon sàkku ci moom mu di mu jël engagement ci ne lépp lu ñu waxtaane ba juboo ci tënk ko ci dialogue national bi moom Macky Sall dina ko jëfee Macky nangul na leen loolee jël na engagement bi journal bi nañu ñi fare ci ku jëg politique gi kay ñoo waxagul lu leer Tulinabo Mushingi wax na lu leer mooy ambassadeur u États-Unis fii ci Sénégal mi ngi xëy di waxtaan ak waa Soleil national ba xamal leen ne réewum Sénégal démocratie bu ñor la amee mu ne leen muy askanu Sénégal di njiitu réewum Sénégal ñu jara félicité la ñu wax na leen nit ne am na ñaar fukki agence ak ñaar yu Amérique yoo xam ne ñoo ngi liggéey fii ci Sénégal Sénégal njàng meeg njàngale mi direct info gis na ne caafa nga cee bëgg a xam ubbil bi école bi mi ngi jëm ci tëj waaye ñaxtu yu ñoo ngi ne kur ne jàngalekat yi ñooy waajal ab doxum ñaxtu ngir bëgg a bi li ñu nar moo di bàyyi ba ñu ne ñaari fan moo des ci épreuve anticipée yu baccalauréat yi ñu wàcc ci mbedd yi amal ab doxum ñaxtu mbir mi ci Vox Populi bu ñu sàgganul dina indi ci réew mi yéenekaay bii di Vox Populi xamal nañu ne président Macky ñetti ministre de la République la yebal ca Tamba jox leen ñetti million ngir ñu dem jaale ji njabootu Binta Camara fàtte ki dee ca Thiès ak ki dee ca Yëmbal. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye sant ko gërëm ko yéen itam yéen ñaandoon ak ñun bu 19 jotee incha allah dinañ fi dellu siwaat yaatalal leen yeneen xibaar di leen ñaanal ngeen yendoog jàmm.